بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi dellu siwaat ak yéen tey ji nga xam ne mooy suñu juróom-ñaareelu fan ci weer wu tedd wi di chahru ramadan nekk it suñu juróom-ñaareelu daje ci keppaaru ramadan seen waxtaan bi nga xam ne dañ koo duppee sous l'ombre du ramadan ñu fekkoon lu jiitu am na fàttali guñ leen fàttali woon ci suñu boroom naka lañ ko war a gëmi ban jeexital la war a am ci ñun gannaaw ba ñu jaar ci ay malaakaam gannaaw ba ñu jaar ci ay téeréem tey ñu bëggoon a ñëw ak yéen ci ñeenteelu ponk ngëm ca mooy gëm ay yonentam jàpp naa yow julit loo réere réere sa diini nga looy bu mu ci bokk nga xam ni lii di ngëm day juróom ñeenti juróom benn ponk la yoo xam ni bu ca yàqu rekk lépp yàqu na ba ca jëkk mooy nga gëm sa borom jalla wa ala ne kenn wuru koo bokkaaleeg dara ñaareel ba nga gëm ay malaakaam ne ay jaamam lañu yuy dox ci service am ñetteel ba nga gëm ay téeréem téere yooyu la wàcce woon ci ñun ngiree xamal ñu lam bëgg ñu jot jaamoo ko ko ñeenteel ba nga gëm ay yonentam yonent yooyu ñoo ñëwoon di ñu leeralal nan la yàlla bëgg ñu jëfee ko ay téeréem juróomeel ba moom mooy ñu gëm àllaaxira luy am la juróom benneel ba mooy ñu gëm ay dogalam ne lu ko neex lay def jalla wa ala tey kon ñi ngi ñëw suñu ñeenteelu bind ci ci ponk yu màgg yooyee lu jiitu yow jullit ngalawaay da ngay gëm ne suñu borom yàlla subhanahu wa taala dafa yónni ay yonent yonent yooyu suñu borom yàlla yónni am na ñoo xam ne daleen caa jox ay tur képp koo xam ni suñu yonent yàlla muhammad saxal na ak yonentam képp ku ko weddeeti yàkki weddi yonent yépp a yem suñu borom mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qul amanna billahi wa ma unzila alayna wa ma unzila ala ibrahim wa ismail wa isxaaq wa yaquub wal asbaat wa maa uutiya muusa wa isa wa nabiyuuna min rabbihim laa nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimuun bokk na déclaration bu yàlla santoon mboole mi xeet yi fi jaar mooy ñu gëm la yàlla wàcce ci ñoom waaye wàcce woon ko ca it yonent yooyu mu tudd ca ma lim ko sànq duñ ca teqalee kenn ci ñun ci ñoom yonent yooyee loole mbokk jullit dafa war a gëm loolu ne mooy ponk la ci ponk ngëmam mbokk yonent yi gis nañu ne yàlla moo leen indi ngir lan suñu borom yàlla moo bind asamaan yi ak suuf ku nekk mu xool la ka neex mu teg la ca masalan jant baa ngi nii bés ba lañuy gisee ko mi ngi jóge penku jëm sowwu biddiw yi ñi ngi jaar seen yoon taw baa ngi ñëw ko dem ngelaw yi naka noonu loolu lépp ci kattanu yàlla léegi nag ndax doomu aadama xel dana nangu yàlla bind ko gën jaare fi ci bind ba pare rek bàyyi ko ci kaw suuf moom lu ko neex rek lay def xel nanguwul loolu moo tax suñu borom mu ne afa xasibtum annama xalaqnaakum abasan wa annakum ilayna la turja'un ndax jàpp ngeen ñi dañ leen bind rek boyal leen te yéen du ngeen dellu si ci man fa taala allahu almalikul xaq suñu borom mu ne kawe na ci yàlla muy def càggante googe kon su ko defee yow julit da ngay xam ne wa ma xalaqtu l jinna wal insa illa li yabudun suñu borom mu ne bind ma nit ñi ak jinne yi lu dul ñu jaamu ma jaamu googee nag mooy tax ñu ñëw ci kaw suuf waaye bu doon aaye ba fala yem rek nañ ma jaamu doomu aadama yi séddalikoo nañu tey ci junni façon jaamu yàlla ku nekk jàpp ne nii la yàlla bëgg ñu jaamoo ko ko kee jàpp ne nee la yàlla bëgg ñu jaamoo ko ko ñoom ñépp ku nekk la ngay jaamu dangaa jàpp da lay jegeel yàlla mooy indi yooyu ngeen gis ñuy sujuutal nag yi di lekk sax seeni nefere la nga xame ni nii mooy ñiy sujuutal guy yéeg daqaar yi ak ñiy sujuutal xërëm yi suñu borom nee nañu boo leen laajee dañ naan wa ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila allahi zulfa ñun kat ñii li tax ñu leen di jaamu dañoo bëgg ñoo ñuy jegeel yàlla mbokk loolu moo moo tax ba doomu aadama yi safaanoo ku nekk ak la ngay jaamu amma suñu boroom moom lan la wax ci loolu mu ne moom moo yónni ay yonent rusulan mubashirina wa munzirin li allaa yakuna linnaasi ala allahi xujjatun baada rusul moo yónni ay yonent ñuy bégal nit ñi ci ngërëmal yàlla di leen xupp ci mbëgalum yàlla wan leen nan la yàlla bëgg ñu jaamoo ko ko bu dul woon ak loolo nit dana ñëw yowmal qiyaama neen ko ah yàlla kat ba muy sujuutal saa nag wa sa ngërëm laa ci bëggoon yàlla kat ba may wër saa xeer wa sa ngërëm laa ci bëggoon yàlla kat ba may màggal saa guy ga sa ngërëm laa ci bëggoon loolee moo tax suñu borom ni ngir dagg layu kenn ci ñoom moo tax mu yónni la nga xamee ni nii moom mooy ay yonent mbokk yonent yooyu ma nga commencé woon ca sunu bàyyi aadama la suñu boroom xamaloon nu muy jaamu yàlla mu tudd annabi loolee moom njabootam ñuy jaamoo sharia yooyee bokkaale wu ñu ak yàlla dara léegi nag bañ demee ba jëmmi jamono ca la borom bi commencé yónni li ñuy tuddi al mursalin muy ar rusul ka ca jiitu woon mooy yonent yàlla nuux alayhi salaatu wassalaam ka nga xam ne moo ci tege moom mooy ka nga xam ne moo ci mujj mooy suñu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent diggante yonent yooyu mbokk julit bari na lool bari waay boo xam ne yàlla rek moo xam ñaata yonent la yónni waaye daal gëmal ni kam jëkk a yónni mooy nuux alayhi salaam gannaaw ba aadama nekkee nabi mu joxoon ko nu muy jaamoo yàlla kam jëkk a yónni risaala mooy nuux kam mujj def yonent ci ñi am risaala ak ñi amul risaala yépp mooy suñu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax borom bi ni wama wama muhammadun illa rasulun xad xalat min qablihi rusul muhammad du dara lu dul yonenti kese ay yonenti jaarul nañ fi jiitu ko loolu muy wone ni ki gën a sànku ci doomu aadama yi bokk na ci kii jaamu sunu yonenti muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax naa leen ko ca waxtaan yu jiitu nga lawaay doomu aadama bi ñàkk déggin sax wax ji mën naa rëy ci moom waaye loolu mooy dëgg loolu man ko daan déggee ca sama sëriñ ba sama soppe ba Cheikh Souleymane Gueye rahimahullah daana wax ni kii jaamu ab yonent ak kii jaamu ab xaj suñ demee ca kanamu yàlla ñoom ñaar ñoo fa yem képp ca loolu rek muy dëgg kon yonent yi dañ leen ne dañ leen a yónni ngir ñu xamal nit ñi ne waruñoo jaamu ku dul yàlla kon nag képp ku wëlbati ko di leen jaamu moom kooku mën nañu wax sax lam def mën naa gën a garaaw kay jaamu guy gi ak daqaar ga ndax guy ak daqaar ñoom waxuñu dara te yonent yi ñoom waxoon nañu bu ñu jaamu kenn ku dul yàlla boo bokk na it loo ci mën a dolli mooy suñu borom dani wa ma muhammadun illa rasulun qad xalat min qablihi rusul muhammad day du dara lu dul ab yonent la ay yonent romboon nañ fi ni ngi noonu noonu it la waxee wa ma muhammadun aba ahadin min rijalikum muhammad du bàyyi kenn ci yéen walakin rasulallah wa xaatama nabiyin waaye yonent yàlla la moo ki mujjoon ci ay yonentam loolee nag mbokk julit mboolem ñiy wax laa ilaha illa allah muhammad rasulullah gëm nañ ne yonent yàlla muhammad mooy dernier yonent allahuma lu dul ne seytaane mane na ay doomu aadama ñu dem ba gëm yeneen yonent yoo xam ne nii bokkul ak yonent yàlla muhammad soo ñëwee suñu réew mi am nañu ay ñuñ fi ne ay nabilaay lañu ay yonent yàlla lañu am nañ fi sax njaboo am nañ fi yonent bu jigéen bu feeñ ci ndakaaru gi ci Gibraltar koo xam ne dañuy yonent yàlla lañu am nag ñoo xam ne ñoom dañoo jàpp ne suñu neekat suñu maam yonent yàlla la kon nit ñi dañ leen di tuumal ndax loolu moom dafa flagrant leer ñu ne nu ñuy def kon ni ñuy def kon dañu naan muhammad mooy xaataman nabiyin yonent yàlla muhammad moom mooy mujjël yonent d'accord nañ ci ak ñëpp waaye nag muhammad moomu moo ñëw nekk suñu maam suñu maam bii mook muhammad alayhi salaam benn lañu duñu ñaar moo weexoon démb moo ñuul tey benn benn lañu duñu ñaar comme li chrétiens yi di wax la trinité mooy ki di Dieu ak le saint esprit ak la nga xam ne mooy Isa ñu ne ñett la yoo xam ne benn la naka noonu it ñoom ñu ne yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaari jëmm la yoo xam ne ni benn rek la mooy jëmm ja weexoon démb moo wëlbati ko ñuul tey waaye mooy kenn ki nga xam ne suul nañ ko ca madinatul munawwara mujj suulaat ko fii ci Sénégal inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mbokk loolu ci musiba yi gën a rëy yuy génn ci làmmiñu doomu aadama ca la bokk ngalawaay nañu bàyyi xel ci loolu bu baax mbokk jullit suñu borom mooy tànn ay yonent yonent yooyu di jokkoo ak ñoom ci la nga xam ne mooy ay wahyu masalan suñu borom nee na yonent bi alayhi salaam qul innama ana basharun mislukum yuuxa ilayya yonent nit lay doon comme ñun li ñuy dal lépp da koy dal yonent day juddu ni nit ñépp di juddoo boo demee ci gàmmukat gàmmukat yi xurafaat yu nekk dañ koy wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nit la comme ñun daa juddu comme doomi màkk yépp nañ juddoo màgg comme ni doomu màkk yépp nañ màggee doon koo xam ne da daan feebar da daan jaaxle da daan tiit da daan def lépp lu doomu aadama ji def noonu it la masa faatoo comme ni doomu aadama yëpp di faatoo kon innama ana bashirun mislukum nit laa rek comme yéen waaye nag mu am lu ñuy teqale ca loolu ko teqale moo teqale mboole mi yonent ak keneen ku dul ñoom mooy yuuxa ilayya yàlla subhanahu wa taala moom mooy kii wax yu jëme ci ñoom ne leen nii laa bëgg ñu jaamoo ma ko mbokk wax yu da ngay gis ni pour nga comprendre ko rek mooy amul benn doomu aadama bu dul gént ma ndax doomu aadama mën ngaa imaginer dugg sa biir néeg fay làmp yi jël sa mbàjj sangu booboo tàllaloon sa loxo doo ko gis waaye nag bi nga nelawee rek nga gént yaa ngi nekk ci ay jardin yaa ngi sëy ba bi nga yeewoo sax danga war a sangu ji farata yaa ngi nekk di xeex am lu la metti ba boo yeewoo mu tiis la yaa ngi naaw ci avion yi yaa ngi dugg fii mbokk loolu kan moo ko def ci yow muy sa boroom subhanahu wa taala léeg-léeg nga gis ñu bari dañuy gént benn mbir balaa yàgg rek ñu gis ko ci dëgg nañ ko gise woon ci gént gi loolu it mbokk moo lay won yonent yàlla yaa ngi noonu suñu boroom yàlla moo leen di xamal imma mu jaarale ko ci gént wala mu jaarale ko ci loo xam ne da koy sànni seen xol rek mu sax ca wala mu yónni yonent malaaka malaaka bi ñëw jàkkaarloog ñoom daal di wax ak ñoom ca wàll googee bokk na loo xam ne nii yow jullit bi war nga koo xam mooy yonent yooyu dañoo ñëw ngir yéwénal ñu suñu àdduna yéwénal ñu suñu allaaxira mi ngi noonu borom bi subhanahu wa taala mi ngi wax suñu yonente alayhi salatu wasalaam huwa alladi baasa fi lummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba walxikma wa in kaanu min qablu la fi dalalin mubin moo yónni yonente yàlla muhammad mu bokk ci ñam ko yónni ngir muy jàng aaye borom bi waaye di leen di leen tàggat di leen teete ci loo xam ne dana leen def ay nit gannaaw ba nag mu jàngal leen nañuy jaamoo yàlla jalla wa ala mbokk def nit ku googee tey nañu xool doomu aadama yi ci seen histoire commencé ci arab yi mbokk arab yi lan moo nekkoon seen aada mooy kii nit daal mooy ki ëpp doole ku ëpp doole sa moroom duma nangu alalam muy règle boo xam ni jàpp nañ ni c'est normal ku am doom bu jigéen bu la neexee nga dem yóbbu ca àll ba suul ñëw toog ci pénc mi di waxtaan dérangé wul kenn tey demal fu mel ne Inde lu ñu daan def mooy bu dee ne yow danga soxna si jëkkëram de dañ koy boole ak jëkkëram takk suul ci bàmmeel wala ñu takk leen taal fekk moom mi ngi dund nit ñëpp dañ jàppoon ne loolu moom c'est normal boo demoon ci tubaab yii di empire romain bi jàppoon nañ ne jigéen moom yàlla da koo bind rek pour mu mu nekk loo xam ne nii moomeelu góor la ba def nañ ci benn daje boo xam ne daje boobu daanaka matagul sax lu mat cinq siècle lañ ca doon waxtaane mooy ndax jigéen nit la wala bàyyuma la gannaaw ba lañ ne waaw d'accord nit la waaye nag yàlla da koo def rek mu nekk moomeelu góor donc ay sëy xamuñu ko woon képp ku am jigéen noo ko mën a amee baax na sa moomeel la comme ni ngay moome sa xar di ko moome sa nag tey jii boo demoon xatta traite négrière bi sunu maam yi nga xam ni ay millions et des millions tubaab yi jël nañ leen tasaare leen en Amérique en Espagne en Angleterre ak fu nekk mbokk loolu église bu jaxasoo bi ñoom ñoo ko dagganaloon ndax dañoo jàppoon ni dañ naan l'homme noir a été créé pour servir le blanc mooy nit ñu ñuul ñëpp yàlla da leen di bind ngiree ñu nekk ci service nit ñu góor ñi te mooy sorewuñu ak bàyyu may mbokk bépp société boo masaan dem loo fay fekk mooy ku ëpp doole sa morom nat ko moom la borom bi di wax naan ulaika kal an'am bal hum adal ulaika humul ghafiluun ñi nga xam ne dañoo won ngannaaw njàngaleem lislaam ñooñu day ñoo bàyyu may ñoo yem bal bàyyu may yi sax ñoo leen tane looloo tax yéen ndaw ñiy liir ngalawaay fexe leen liir livre boobu ñu tuddee l'homme s'est inconnu al insan zalika al majhul ki ko bindoon mooy Alex Carrel di benn écrivain français mu wax ca wax yu am solo mu ne tey àdduna bi coono biñ daj ci développement industrie alal judul jeex waaye lan la jëriñ doomu aadama mooy dafa wëlbati ko lor doomu aadama moo tax gaa yi xam ngeen ni buñ dajale woon li gaynde yi ak jën yi ak jaan yi lépp di rey par at motul asakay li doomu aadama di rey moroomu doomu aadamaam di lor moroomu doomu aadamaam mu ne moom lan moo ko waral mu ne parce que doomu aadama yi dañoo jéem a lijjanti ay industrie nu ñuy note àdduna ci jëkk ñoo xam seen bopp mu ne nag ki xamul boppam nan lay mën a jëriñe boppam kon problème bi mooy dañoo war a étudier xam luy doomu aadama mbokk yonent yi nag dañoo ñëwoon xamal ñu kan mooy doomu aadama suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ni yaa ayuha nnaas inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu inna akramakum inda allahi atqaakum suñu borom mu ne ay yéen nit ñi maa leen bind jële leen ci benn bakkan bu góor ak benn bakkan bu jigéen gannaaw ba génne ci def leen ay giir ay nation def leen la nga xamee ne nii moom mooy ay xeet ngiree ngeen di mën a xamante ci seen biir loolu kese la waaye ki gën a tedd ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla na am mbokk su ko defee loolu bu amee doomu aadama nag ca la ñuy xam kan mooy doomu aadama doomu aadama lu ñu leen di xamee mooy ñoom ñépp benn lañu ci aadama lañ jóge kii daa ñuul kii jaune kii weex taxul kenn gën sa moroom mi ngi mel ni rek géttub nag goo gis mën nga caa gis nag bu ñuul wala nag bu weex wala nag bu chocolat fa ñuy gënantee nekkul ci couleur ya fa ñuy gënantee ma nga nekk ca nañuy rëyeeg nañu nañu mel amma doomu aadama yi suñu borom nee na suñu gënante nekkul ci judd gi nekkul ci melokaane bi nekkul ci làmmiñ bi waaye mi ngi nekk ci ki ki gën a ragal yàlla loolu kon dañuy won ne doomu aadama yépp a yem au départ léegi nag ku nekk ci ñun mën ngaa kawe mën ngaa suufe mi ngi noonu ki gën a ragal yàlla ca mooy ki gën a xam yàlla gën a def ay ndigalam ca mbokk ki gën a ragal yàlla kooku ëpp njëriñ ci société bu mu mën a doon ndax yàlla ragal gañ koy ragal du dara lu dul def loo xam ne day tax àdduna ñoŋ alaxira ñoŋ su ko defee kee nga xam ne moom dañoo jàppoon ni nit ku ñuul la moom ku torox na ba faw day daal di siggi na ah ndekete mag ñëpp a yem fexe na góorgóorlu ragal yàlla ngir yitteem ñëpp naka noonu jigéen jee ñu jàppoon naa yow yaag bàyyi ma yem mu ne ah ndekete kat man mag góor ñee yem ki gën mooy ki gën a ragal yàlla jéem a góorgóorlu ngir raw góori jamonoom naka noonu doxandéem ya jóge woon ca àll ya sori ya ñëw soofantal leen ñu ne ah nekkate ñun kat ñoo ngi dëkk ci taax yee yem jéem a góorgóorlu raw leen ndax inna akramakum indallahi atqaakum mbokk mboole mi yonent yi yàlla mas a yónni mosuñoo jàngale lu dul la nga xamee ne nii moom mooy loolu mi ngi noonu borom boobu subhanahu wa taala yonent yooyu yépp daf leen a woowoon ngir ñoo tàggat nit ñi jëme leen ci benn yàlla xamal leen ne yéen ñépp a yem képp ci kanamu yàlla yéen ñépp amul kenn ko war di sujuutal moroomam wala di yaakaar moroomam wala di toroxlul moroomam yéen ñépp a war a ànd jëm ci borom bi jalla wa ala looloo tax borom bi subhanahu wa taala di ñu wax ni wa ma arsalna min qablika min almursalin illa nuuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana faabudun mboolem yonent yi ma mas a yónni lenn dong laa leen mas a wax dem leen wax seen xeet ne man dong day ooma kenn ku ma bokkal sama yàlla gi ñoom ñépp nañ ànd jaamu ma gis ngeen su ko defee borom bi subhanahu wa taala teg ci ne inna allazina tad'uuna min duni illahi ibadun amsalukum képp ku ngeen di woo ca du yàlla jibril alayhi salaam ibrahima alayhi salaam jant ba weer ba lum mën a doon suñu borom ni ñooñu ay jaam lañu rek comme yéen lii mbokk mooy la nga xam ne nii moom la kon yonent yi alayhimu salaam indi woon ci àdduna siggil ñañu suufe loon wàccee ña nga xam ne nii jàppoon nañ ne ñoo kawe ñëpp mbaru ñëpp xam leen ne déedéet lii tax àdduna baax àdduna ñoŋ mooy ñëpp yëg na ñoo bokk ndey ak baay ñëpp yëg na ñoo am ànd bokk ca yàlla looloo tax ki nga xam ne mooy ren ba jiite woon saba ca yaman ba ko suleymaan woowee ba jàngal ko lislaam keroog ba muy tuub dugg ci lislaam lu mu wax rabbi zalamtu nafsi wa aslamtu maa suleymaan lillahi rabbil alamin ey yàlla bokkoon naa ñi tooñ sama bopp ci bokkaale waaye bis nekk tey day xam naa maa ngi ànd ak suleymaan di jébbalul yàlla mii borom bi ndaafan yi gis ngeen bi mu ñëwee jébbaluwul ci suleymaan daf na maa ngi ànd ak suleymaan di jébbalul borom bi ndaafan yi ndax loolee da ngay gis ne sunu borom mag ñuy nettali ibrahima alayhi salaam ba ko borom bi ne ibrahima jébbalul lan la ca teg mooy aslamtu li rabbil alamin maa ngi jébbalul ki nga xam ne nii moom mooy borom bindaa fan yépp jalla wa ala loolu comme ni ma leen ko waxee yonent yi ñëwuñu woon ngiree wax ñu nu ñuy def ba texe àllaaxira kese déedéet mbokk jullit yonent yi dañoo ñëwoon ngir defaral ñu suñu àdduna ji won ñu ne lii di ab commerce nii la war a tëdde bu kenn nax kenn bu kenn lekk riba bu kenn jël alalu nit atte yi nii la war a tëddee bu kenn tooñ kenn su dee am na ko tooñ na doon daa nekk ci buur yi wala daa nekk ci baadoolo yi nañ teg loi bi ci kawam ca la waxoon ne Fatima bintu Muhammad bu sàccoon damay dagg loxoom sallallahu alayhi wa sallam teere ñu ci lépp loo xam ne ak injustice la guy tax doomu aadama yi seen dund lu baax yonent yi tere ñu loolu waaye ñaax ñu it jàppalente leen joxalente leen ah ki gën ci yéen xam leen ni mooy ki gën a rafet jukko ki gën ci nit ñi mooy ki ëpp njëriñ ci nit ñi loolee kon dañu ko defoon mooy bu àllaaxira amul woon sax du tee doomu aadama yi soxla njàngalem yeneente boobu nga xam ne dafay indi équilibre indi la nga xam ne mooy jokkoo ak déggoo ca la nga xam ne ni mooy doomu aadama yi ca la nga xam ne ni moom mooy fii ci kaw suuf mbokk yeneent yooyu yéemuñu woon di jàngal nit ñi rek lii baax na lee baaxul waaye dañu leen ci doon yar jiitu nit ñi ci lañ leen di jàngale suñu borom subhanahu wa taala def leen ay royukaay moo tax suñu yeneen ci sallallahu alayhi wa sallam borom bi ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana ñeel na leen ci yonent yàlla bi royukaay yi gën a rafet gannaaw ba nag yàlla tagg ko ne ko wa innaka la ala xuluqin azim yow de yaa ngi ci jukku yu kawe diina ju kawe loolu taxoon na ba saxaaba yi bëggoon a baax ñëw ci ay Aïcha ay Aïcha radiyallahu anha yàlla day def ne yonent yàlla bi ay jukkoom kawe na ca nee nañu roy ko waaye ay jukkoom lan la woon Aïcha wax leen wax ju gàtt kaana xuluquhu alquran yonent yàlla alquran moo doon jukkoom kon yow mi bëgg a baax jëlal téeram yàlla bi lu mu santaane defal lu mu tere bàyyil lu mu gëmloo gëmal lu mu weddiloo weddil boo ko defee day xamal ne bokk nga ci jaam yi gën ci kaw suuf bokk nga ci jaam yi ëpp équilibre ak dal ci kaw suuf bokk nga ci jaam yi suñu borom di wax ni wallazina allazina amanu walam yalbisu imanuhum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun ñooñu nga xam ne gëm nañu te ngëm nga raxuñu ci dara ñooñu day dana leen ñeel ak dal ci lépp loo xam ne ni am na ci kaw suuf du leen déranger du leen jaaxal ndax dañuy xam ne lépp ci yàlla la jóge lépp ñu delloo ko yàlla borom bi ne ca ñoom day ñooy ña nga xame ne nii ñoom ñooy ña nekk ci yoonu jub mbokk yonent yaa ngi noonu ndax yonent du jëfandikoo xalaatu doomu aadama ñu bari ci doomu aadama yi la leen sànk mooy la sànkoon qawmu nuux ak xeet yi topp seen gannaaw la in ataatum basharan mislukum innakum idan la la min dalin heure boo xamee ne nii da ngeen di jël topp leen lu dul nit comme yéen moom nit la ngeen di nit ngeen bëgg moom ngeen topp ay xalaatam mbokk loolu moo alagoon yéeféer yu jëkk ya ba nga xamee ne nii loolu lañ doon wax bu ngeen toppee bashar mislukum innakum idan la min alxaasirin da ngeen bokk ci perte suñu borom nag dañu xamal ne déedéet demewul noonu mbokk yonent lu mu wax yàlla ko ko waxloo moo tax suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam yàlla ne wala yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha yonent du wax lu dul loo xamee ni nii suñu borom yàlla moo ko ko waxloo loolu moo tax ba mbokk julit loo lépp lu ay yonent di tere ñoo koy jëkk a bàyyi Shuaybu alayhi salaam ba muy fekkee waa dëkkam ñuy def commerce bu bon di noggatu gox ya ñu nekkaloon mu tere leen ko ñuy contesté mu ne wa ma uridu an uxaalifakum ila ma anhaakum anhu mi ngi noonu in uridu illa al islaaha ma stataatu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib ay yéen saw xeet lii ma leen di tere day man commerçant laa comme yéen bu terewuma leen ko wëlbati ko waat di ko def waaye man bëgguma lu dul yéwénal société bi ci sama kémtalal kattan sama réussite na ci yàlla dong lay jóge man mii ci yàlla dong la wékku ca ci yàlla lay dellu lii moo nekk mbokk la nga xam ne mooy responsabilité bi yàlla tegoon ay yonentam nañu woote jëme ci njub te njub googee ñoom ñu jiitu ci waaye mbokk ñi jàpp na ñoo wuutu yonent yàlla yi ci kaw suufit ñu tudde leen ay imaam ay sëriñ ay luñ leen mën a tudde ngal la way seen warugar moo nekkoon loolu mooy jàngale yonent yi indi jàngal ko nit ñi ca la ñuy digal yonent yi ñu jiitu ca la ñuy tere yonent yi ñu ñu jiitu ca nga xam ne diina ji amul lu ñuy tudde borom sañ-sañ comme ni ko doomu aadama yi jàppe mooy kii day moom ah la muy def moom xëy na am na am na sañ-sañ ci loolu déedéet mbokk jullit lépp lu xaaraam ci diine yonent yàlla muhammad moo ko jëkk a daw lépp lu ñuy digle ci diine yonent yàlla muhammad moo ci jëkk a suubu comme yonent yam jiitu woon kon gannaaw loolu it amul kenn ku ñaan dafa am sañ-sañ bi loolee mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax su ko defee mbokk jullit lii moo nekkoon suñu bind bu jëkk bi ñuy am ak yéen ci gëm gi ñu war a gëm yonent yàlla yi insha allah bu dee ne nag yàlla dajalewaat nañu fi suba ak jàmm daañu dellu si ci yéen tënkal leen ña nga xam ne ñooy juróom ñi ci gën a tedd waaye nag wàcc ci ki nga xam ne mooy sangu yonent yi mboolo seen mooy suñu soppe bu màgg ba suñu royukaay bu màgg ba nga xam ne moo ñu jàngal texeeg àdduna ak texeeg allaaxira muy suñu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi noonu mbokk julit yal na yàlla defal ñu tawfiq nangul ñu suñuy koor nangul ñu suñuy ñaan fajal ñu suñuy aajo teggil ñu tiis bi nga xam ne moo nekk ci kaw suuf delloo ñu ci suñuy jàkka delloo ñu ci suñuy liggéey wuutalal ñu lépp loo xam ne nii ak ñàkk la goo xam ne nii feebar bi jur na ko mbokk mi ngi noonu wallahu aalam wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh